mu toog benn bés ni gént naa sa maam Abdou génn àdduna sept avant sa génn àdduna mu wax ko ma ni que mu ma 14 septembre lay génn àdduna ma ni que ban at la mu ni ma xaw ma at ma toog sept ans yu nga xam ni diggante 13 ak 14 la nuit du 13 ak 14 damay ñëw umraal sama maam pendant sept fu ma fekk si àdduna nag danaa jël avion ñëw umra delluwaat mës na ma fekk Malaisie Kuala Lumpur mës na ma fekk Jakarta waaye bi ma mujjee fekk mi ma fekk Qahira Caire mhm. ma demoon le week-end di jënd ay livre dellu si ma xool rek muy le treize noonu laa jële avion daal di ñëw bi ma ñëwee maa ngi fekk sama bunt ndeysaan seen bu taal ne Seynabou mu bàyyil ma dafa amoon benn ma ñëpp foofu boo xam ne bii fu góor gi waxee mu enregistré que xamoon nañ nag itteewoon naaj téere yooyu ite woon naaj band yooyu ma ñëw mu bindal ma ni ma indi naa la sa bànn maam yi maa ngi kër Maodo Lo mais ëllëg laay dellu soo bëggee ñëwal jël ko si guddi gi dem enregistré ko ma jubal directement Kaaba gi tawaafal sa maam daal di ñëw jël kaset yi di ko déglu mujj guddi googu du 13 au 14 yëpp. sa maam laa ko fanaan la si ay bandam ba teel sa maam jéene ba kawara sa waajur bu jigéen wooma ni ma sa maam Abdou dem na moo ma ko tàggee Seynabou Seynabou Tall jox naa ko kaset yi dugg na si avion yi xamul ni sa maam Abdou dem na bi mu wàccee fii lan ko ko yëgal ma bëggoon rek bésu ñaan la man dama nekk muy bésu ñaan si man tous les ans le treize ak dam koy def bëtu ñaan lim koy ñaanal ak ñamu fekki ak doomam yu tedd yi nga xam ni ñoo ko fi wuutu woon fekk ko ñaanal yokk leeram nandal ko si di kawsara yàlla mu xaw juhun yowma idin naaima li saayiha raadiya fi jannatin aaliya laa tusmau fiha laagiya fiha aynun jaariya fiha sururun marfuua wa akwaabun mawduua wa namaariqu masuufa wa zarabiyu mabsuusa afalaa yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat yan na boot loxoom di doxantu si àjjana ni nga xam ni yalla moo ko wax si aaya bi waaw te sëñ wax si waqat xassahu li mawla tariqa shafaat waaw yéen loolu rek la ah sa ah. papa bi ci union daayira bu sa papa yi waaw gàmmu googu la mujj dem ci fas waaw waaw wallahi waaw waaw na mujj dem mooy euh, kii ñoom Ahmada bi cest à euh, tour tour turu jumelage bi moom la jëkk ñëw def moom la mujj ñëw wax lu tax mu tuddee sëñ Moustapha Seydi Jamil waxtaan wur leer a leer booba temps Pam Moctar a ngi nii waaw moo ko doon jottali booba temps baat bi sax dem na ta te bés boobu maa ko juutee tàkkusaan sëgal tàppe si pomm bi mais waxuma ni day ñëw parce que xam na ni su ma waxee ni day ñëw du ma nangu mu ñëw mais nag mu daal di ñëw waaw ma bëggoon rek lii nga xam ni li ñu daloon si bi ñuy laajal sëñ Moustapha jàkkaam bi ñu koy laajal jàkk bi ñu koy laajal bi ñu laajee ba pare mag ñi dañu wax ni woote ngeen ñu wuy si leen waaye laaju leen tey nag ñu laaj. ñu la moo tax sëriñ bi. Ah. damay laaj. te lii laay wone tuuti na waaye symbolique la. dix mille francs la xam nga lu tax ma koy wone démb samedi bi ma jógee si dajee sëñ Mansour euh, sëñ Babacar dan ma woon ni ma sa ay taalibe yoo xam ni sa ay njaboot yu nekk Kër Massar ndox mi yóbbu na seen kër il faut nga teew fa ñu indil ma oto ma dem teew fa nekk fat ñoom waxtaan ak ñoom waxtaan wu am solo bi may dem benn ndaw su jigéen yoo xam lépp perdre na ko mu ni ma dégg naa seen woote bi ngeen di woote altine ma ni ko waaw mais jooy naa sax bi ma ko joxe mu ni ma kii maa ko def si Maodo maa ko def si yàlla waana al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahad mu ni ma dama diig si Seydi Hadji Malick waaw dama dama dama dama jeex si Seydi Hadji Malick bésam biñ koy woo muy altine bés boobu màkka si man ni li nga wax dig si xaaj malik doomam sëñ Babacar moo koy wax waaw wa qalbiya fii alaqati kat kafaani ana wallahi xaqati kat kafaani سباني ما سبا سباني gis nga dig boobu dig boobu mu mu mu mu dig si sëñ Ba si si Hadj Malick sa maam sëñ Babacar loolu la teggee daf ne yëg bi ma yëg nii sama xol dafa aju si yow sama baay mu ne ana wallahi xaqan ñetti taakid ana wallahi xaqan fii ka faani je suis anéanti en toi je suis pulvérisé en toi je suis dissous en toi ndaw soosu nag loolu sëñ Babacar waxoon bàyyam moom la def negam moom si situation yooyu mu nekkoon dans le dénouement com complet moo ni naa delloo yu njukkal yàlla xam nga lu tax mu delloo njukkal yàlla wa qad manna allahu ala almuminina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma may ma rek ma firi kitaaba wal xikma mhm. waaw may naa la ko ñu ameel yàlla njukkal yàlla nee na li nga xam ni moom laay jagleel jullit yi bu leen di yónni dama leen di yónni ku jóge si ñoom noon naa yónni malaayika mënoon naa yónni jinne noon naa yónni sindax mënoon naa yónni nag parce que am na ay dëkk yu nga xam ni nag lañuy ñuy jaam mooy seen yàlla waaye ku jóge si ñoom laa yónni waaw at yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma taalimu alkitab wa taalimu alkitab walxikma yaati baada taalimu alaya tilawati alaya wa tilawati alaya waaw kon nag njukkal boobu ñu war delloo yàlla mu nekk si tabax yu ñuy xam ne moom la ñu tabax jàkka si Xaaj Maalik nag sa maam suñ Babacar wax ni ah, ah, wa ma taxarraka illa fi ridal malikin wala wa ma tasakkana illa fi ridal maahi ne sëñ xaaju malik waxtu boo ko muy yëngatu si lu neex yàlla rek ngërëmal yàlla lay wut soo ko gisee mu mu dem yëngatoowul dal li ko dalal rek mooy seet li nga xam ne lii moo neex yonent bi sallallahu alayhi wa si loolu nag la ñu مفقود للقرآن وقليل من الجنان كل قر قر صفا